ay taxawaay yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa am na ko ak ay soppeem bi mu ne waaj leen dañuy dem umra ba yéeféer yi yëg ko defe ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay songi waa Màkka ba bañ ko yëgee dajale seen gawar yi ñëw taxaw ci frontière bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ñu ne ko doo fi dugg lu dul ne dañuy signé ay pacte Suhayl ibnu Amir moo doon bindal yéeféer yi alin karamala wajhahu moo doon bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye alin bi mu bindee min muhammadin rasulullah law naalamu annahu rasulullah ma manaatum anil bayt bu fekkoon d'accord añ ne ne moom yon yàlla moo ko yónni kon duñ leen tere ngeen dugg ci kër gi duñ leen fi génnee min muhammadin rasulullah abdullah min muhammad ibni abdullah min muhammadin ibni abdullah neel kay abdullah mooy baayam waaye bul ne rasulullahi yonent bi ne ko alin karamalaaj wajhahu effacel fi nga bind rasulullah mu ne ko abadan man man alin fu ñu bind sa tur man ma koy effacé wala li ñu meloon ci topp sopp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi forcé woo ko de ni ko sama taalibee nga par force nga def lu mën a digal mu neex la mu naqari la danga koy def waaye déedéet daf ko respecté cofeel ju mu am ci moom ne ko won ma fan la boo demee ci ibni Hisham nee na dafa tàllal loxo bi won ko gannaaw ne ko nii la ndaxte buggul woon sax mu effacé ko yonent bi daal di effacé sallallahu alayhi wa sallam Umar ibnul Xattaab ñëw ne yonent bi lu tax duñu dugg gannaaw bi ñu signé li ñuy ba pare mu ne ko en tout duñu dugg mu ne ko yaa ñu dig ne dañuy dugg tadxulunna almasjid alxarama insha allahu ba aaya jeex yeneen bi ne ko est ce que dan mu ne ko du ñoo nekk ci dëgg yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ton bu dëgër yonent bi ne ko mu ne ko pourquoi ñuy dellu gannaaw mu ne ko non dellu mu ne ko ñun ragaluñu yeneen ci mu ne ko déedéet mu ne ko pourquoi ñuy ragal ñii mu ne ko déedéet ragaluñu leen mu ñëw fekk Aboubacar fi mu toog moom Omar ibn al mu daal di ko ne ko waxalal sa waaji Aboubacar ne ko innahu kii ci ndigal lay doxe wax yi mooy jóge juróom-ñaareelu asamaan bi wàcc ci moom kon melul comme yow Omar daal di créer benn fronde ci saxaaba yi saxaaba yi daal di am fronde yonent bi